Wow. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزيل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 اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة الآخرة وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى سوف يعطيك ربك فترضى حياك الله ما شاء الله ألم يجدك يتيما فأ اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ربك فحدث صدق الله العظيم ci bàyyi laaj Ibrahima Sakho daan ci sonn lool daan wax ne nit ñi dañ koy fàtte ku am xaalis rek ne alhamdulillahi rabbil alamin mu ne fàtte ne nekk jullit ak gëm yàlla moo dàq xaalis dañ koy fàtte ñun bu ñu wéree ne alhamdulilahi rabbil alamin bu ñu amee luñ def ci suñuy poos faj suñ soxla ne alhamdulilahi rabbil alamin fàtte ne du kum neex nga gëm yàlla du kum neex it nga nekk jullit kon yàlla mi bind mbindeefam yi seppi la ci biir mbindeef yi def la nit mënoon la def lu ko neex mu bàyyi loola yépp def la nit mënoon ci biir bi mu la defee nit mu dëpp sa xol ba doo gëm dara lam wax ca alquran xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wala absirihim xisaawa loolu ku ko yàlla defal dootoo mën a gëm ñun ñi ci yàlla musal nag bëñ gëm ko nañ ko sant ci loolu kon ñu ngi koy sant ci amal bi ñu amal waaye def ñu ñuy gëm way gëm boole ñu ci way gëm yi waaye def ñu ñuy jullit ci biir njullit googu mënoon na la bàyyi nga nekk ci lu la neex du tee nga nekk jullit nga tànn bunt bu ñuy wax al te fa la tariqa jaar nga xool ku ñuy wax Cheikhul Xaaji Malik ne moo ma doy jox ko sa bopp am ku xool ne maam borom tuubaab moo ko doy mu jox ko boppam am ku ne Cheikh na Cheikh Sadbu am ku ne maam Bou Kounta am ku ne maam Abdoulahi ñas am ku ne maam Amari Ndaak am ku ne maam Limaamu Laay am ku ne Cerno mat Saidu Ba am ku ne Cheikh Al Hadj ak njabootam yooyu nga xam ne boo ca nekkee mu ngi mel ni ñu doon def examen nga am premier nga jël premier boole kook mention très bien looloy tariqa de ndax ku amul tariqa mënoo yegg ci yàlla ku amul sëriñ doo yegg ci yàlla mën nga am tiyaabo nag di nga nekk jullit xam nga dañuy jaawale am tiyaabo ak yegg ci yàlla ku amul kilifa doo yegg ci yàlla mën nga nekk nag jullit simple di julli di woor dinga am tiyaabo li yàlla diggee yépp di nga ko am di nga nekk jullit di woor dem màkk boo ko mënee saraxe boo ko amee génne azaka bu matee yépp nga di ko def di nga nekk jullit waaye doo yegg ci yàlla xam nga noo koy déggee ñun ñëpp ay sénégalais lañ waaye ku militewul ci parti APR wala àndoo ca coalition ba nga xam ne APR moo ko jiite bu ñuy séddale gato yi doo ci bokk dëgg la wala du dëgg dëgg la wala du dëgg mu ngo pourtant ñun ñëpp ay citoyen lañ est-ce que ñun ñii ci tant bi am na ko ci yaakaar ñu consulter ko tey wala suba pour boole ko ci groupe gouvernement bii di ñëw am na ci ah damay damay laaj de mënu ma ne amul ndax xaw ma lépp waaye dama ne du ñun ñëpp sénégalais lañ amal ah, de sama carte d'identité ngi nii yéen ñii voté leen ñi ci bari vote nañ lu tax consulté wuñ leen amu leen parti bu ngeen bokkit nekku leen ca bopp ba waaye ña nekk ca bopp parti ba milité bu yàgg am relation ak président de la république balaa fal kenn woo leen ba noppi ñi coalition ñi bokk ci coalition bi yépp danañ jot seen wàll ci gato bi dëgg wala du dëgg mm-hmm. te pourtant ñun ñëpp ay citoyen la du tee nag yow boo liggéeyee jee bu weer dee ñu fay la kenn du lekk sa salaire du dëgg salaire boobu ngay am te milité woo bokkoo ca gato ya mooy sénégalais nga mooy jullit nga simple boo bëggee nekk ministre nag da ngay làqu ci gannaaw alaaji Maalik mu nommé la leer na boo bëggee nekk député da ngay làqu ci gannaaw Alaaji Maalik boo bëggee nekk maire dangay ngay làqu ci gannaaw Alaaji Maalik su ma nee Alaaji Maalik yóbbaale naa Sëriñ Tuubaa ak ñi aju ci diine ji yépp dafa di rek kenn kuñ tudd mu yóbbaale ñi ci des yëf yi sa très simple boo gisee ñiy weddi tarixa dañu amul kilifa te mooy waxtaanu tey bi waxtaanu tey bi mooy xaqiqatul muhammadiya lu garaaw la xaqiqatul muhammadiya mooy waxtaanu tey bi lu garaaw la te dinaa ci wax lu garaaw loo xam ne ci alquran ak sunna laa koy teg xaqiqatul muhammadiya mooy fatiha mooy bismillahi rahmaani rahim jeex na bismillahi rahmaani rahim mooy fatiha génn ko mu des nag maratib ya ca biir ak lay tax nga xam lan mooy xaqiqatul muhammadiya loolu rek la ku amul sëriñ nag doo xam mukk xaqiqatul muhammadiya moo tax ba yàlla caxee caxam ba alaaji Malik moo njëkk a turbe ba yàlla caxee caxam ba xam nga nit ñi nag booy wax dañ naan dangay ngay naatalal alaaji Maalik ku ko mën a naatalal gannaaw bi ko yàlla naatalalee ba noppi loo wax ci moom am na loo xamul loo wax ci Maodo rek am na loo xamul Maodo ëllëg la ko nit ñi di xam waaye du fii fii ci àddina kenn mënu ko xam boo lëgee bés penc nag ci la nit ñi di xam kuy alaaji Maalik ndax moom wane wu ko du ci wax du ci jëf dafa nëbb boppam te wax na ko ñëpp dégg ko sëñ Abdoul Amin wax na ko ba tàyyi Cheikhul Hadj Aziz wax na ko ba tàyyi Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum wax na ko ba tàyyi ba mu demee Màkkatal Mukarram lu mu fa njëkk a ñaan yàlla yàlla maa ngi lay ñaan réew ma ma nekk di senegal dañ mën a toñ ñépp toñ mooy tunqoom boog waaye man dey ku ma tooñ man Maalik yëguma maa ngi ci suuf maa ngi lay ñaan nag loo ma dënk ci wilaaya nga nëbbal ma ko ba ëllëg bul ma ci wan dara fii ci àddina ñama nekkalit buñ ci xam dara dama jox leen ginnaaw sëñ Abdou Lamine moo ma nettali ci gémmiñam mu ne bés sëriñ Babacar si da ko ne si li nga wax jaaxal nañu yaa ko ñaan ba yàlla nangul la ko ci réew mi yépp jaxaaya ngi xëy dinaaw la ñuy wax lu ko waral mu ne ko si sujeer mooy cin loo bañ bañ bañ bu baaxee cóol a génn mu ne ko loo dégg ñu tudd ci man cóola lu génn la waaye cin la kenn ubbiwu ko mu ne ko loo dégg ci man nit ñi di ko wax ak lu mu rëy rëy dëgg la mu ne waaye cóola lu génn la cin la kenn ubbiwu ko te dina leer maa ngi nuyu ñëpp introduction rek laa doon def di ziyaare ñëpp nag xam naa ñëpp jaaxle nañ ne nañ ki ñuy yërëm ne nañ ko jox kàddu gi mu ngi mel ni du moom waaye wallahi wa sharafil quran fii ma toog bu ma bëggoon a jóg léegi ngeen yërëm ma waaye dafa am loo xam ne ku mu teree di jaamu yàlla doo doo nit Mansour daf ma woone ma jégg naa ci xaal bi nga nekk démb ak tey yónneel oustaz Abdou Aziz oustaz Sidi Mbay ak xaaji Malick jóob ñu représenté la mu wax la muy wax ba yeggal ma ne ko maa bañ ma ne ko ci li gën a gàtt rek laa lay wax maa bañ sa ngor gi nga nekke <laughs> man nag njaay maam njaay lay da baax tey nag maa ngi wallaay Ndiaye dem ba bitim réew suñu conférence yi xale yi nga xam ne ni ay gone yu ndaw lañ. waaw tax laa dagg ay billets deux millions ñëw. wallaay ngir yàlla ak waaw loolu ku ko mënul xamal ñaar. Mhm. yow lépp lu la lu nekk tooy luy wàcc la da am jàmm de. <laughs> barke te te li ma dal xaaju maam du dara. tooye rek. mu ngi mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam. walakum fi rasulillahi na xasana du loolu lañu am ngeen roy moom ni mu duggee neex na lool. am ngeen royuwaay wu rafet moo di rasulullah du loolu la yàlla wax weer wi ñu génn ci la def isra mi mi'raj te la ko waral dañ ko bundu xataal ci makkatal mukarram sëgg na ji julli ñu sotti ko paanu suuf ci fi mu sëgg sëgg na di julli benn yéefar bàyyi ba mu sujut mu jël tànkam teg ci loosu yonent bi dëggat ba jëbi mel ni luy foofu Seydina Aboubacar la yàlla yenkewal rek mu ne teel génn ne i ki ma seen ci kaw rasulullahi kii xanaa dafa dox dal di ñëw puus ko mu daanu yonent bi ne ko booy defati defal ndànk nag bindoo ko ba ko puus muy daanu baalu ko man mi mu ko def diisul ci man yàllaa ko dogal ci man ah mu rañaan mu mu mu ne ah sëgg na di julli benn yéefar fekk rendi na rendi nañ gëlëm mu ñaan mbàq ga mbàqu gëlëm xam nga du lu tuuti nëbal ko ñetti fan ba mu nëb bàyyi ba yonent bi sujud mu ñëw sotti ko keroog la ko sayyidatuna Fatima ne ko papa lii ëpp na wax ci yii ëpp na yii ëpp na ci fan yooyu la ne ah ku am kër baay am nga kër ndey kon naa seeti sama kër ndey ba xam nu ñuy def ak man mooy wax kër nijaayam mu dem taayif taayif ak màkk soriwut ñoom oustaz abdul aziz ñi leen di fa dem at bu jot xam nañ li may wax taayif ak màkk fanweeri kilomètres yu teg rek la yaakaar naa bariwut mu ne naa dem taayif su ma demee ut fa ndimbal ci sama waa kër nijaay ñu ne ndokk bu xamoon ni réew ya ak dof ya xaj ya naka la ñuy ñëw rek ñu di ko jolli xeer benn saxaaba bu mu àndal mooy doon paare xeer yi di paare am benn yéefar bu ne fekk kii di paare jëflante kook moom duñ jot ci moom ñu ne ko tëll xeer ci jël moom fa mu toog di jéem a fatamtu lañ yónnee yonant bi benn mu dal ci el yel bi yel bi foofu jibril ne cëpp ci kanamam ne ko sa borom nee na ñi la def nii jox ma ndigal rek ma boole ñaari montagne yi màkka yam fi mu ne ko neel sama borom su fekkee ne moom moom yàlla merut man miñ ko def meruma ne ko rek maa ngi lay ñaan nga wax ko ne ñii ma def nii dañ ma xamul suñ ma xamoon duñ ma ko def te suñ ma gëmul it amaat na seeni sët am ñu génnee ci ñoom gëm ma ëllëg loolu rek dana ma doy kon ne ko xaw mun laa yaalamuun xeet lañ mu xamul bu xamul nañ la na leen baal jibril del siwaat ne ko sa boroom nee na nag baal na leen waaye lenn la mënta supporter sa deret ji buy laal suuf mu tukkal àddina yonent bi commencé di as deret ji pour bañ mu laal suuf ba mu fa jógee la jubari kër ummu haani jigéenu seyduna ali la fekk moo ko invité won reer bi mu yegsee mu ne ko lii nag ya rasulallahi lii nag mu ne ko ah du dara ay mbindeef yu xamul dara rek ñoo ma def nii fi mu toog tëdd ci lal bi di waxtaan ak moom mu di ko préparer pour defaral ko reer ndax boobu defaral na ko sunguf ak soow moom amoon bool bu doon tey danga naan mooy cere bu doon naan mooy cere fi ko koy defarale jibril ne cëpp ci kanamam ne ko sa borom nee na bu laal reer bii ndax invité na la reer fu reer amul foo xam ne kenn mosu fa yegg sa borom nee na foofa la lay invité tey fa ngay reeree ji ñu may ko mu toog alxaaji Mansour Diaw mu cheikh alxaaji Abdul Aziz Dabba Diaw waaw Diaw Diaw baal ma Diaw waaw kañ jaw waaw jaw jaw incha allah jaw jërëjëf waaw kañ man suur waaw Ousmane waaw si si maa ngi jéggal li ma doon wax moom la ñoom Alioune Badara yëkkati moom la Seydul Xaaju Malick tënk noonu ñu nuyu Xaaju Mansour Jaw bu baax bii nga xam ne bokk na ci ñi njëkk dawalal Cheikhul Hadj Abdoul Aziz oto yóbbu ko boobu oto yombul ca année cinquante yi benn Cheikhul Hadj Abdoul Aziz dem àddina mosul tàqali ko ak moom kon jaww mi ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di ziyaare suñu sëriñ bi nga àndal maam Ousmane Sy ñu ngi lay ziyaare bu baax li la jox sa wàccuwaayu maam Cheikhul Hadji Malick yaa ngi ñu fekk ci bunt buñ doon wax waaw kay fi nekk fi la fi la fi la fi la fi la mu bàyyi ko ba mu wax ba noppi mu ne ko maa la gën mu ne ko foo ko teg mu ne ko ba fii la nekk fi man jawaami yi fi lañ nekk masajid yi fi lañ nekk waaye ashrafil xalqi fi la nekk asamaan jooy ne ko wax nga dëgg suñ borom nag tëral stratégie pour yonent bi barkeelal asamaan moo indi isra wal mi'raj isra guddi la mooy doxub guddi jógee màkka min al masjid al xarami ila al masjid al aqsa subhaana alladi asri bi abdihi leylan min al masjid al xarami ila al masjid al aqsa alladi baarakna xawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiun basir li nuriyahu la wax min ayatina lu tax innahu huwa samiun basir bi yonent bi defee isra miraaj bi mu ngi ko defee ca baytil maqdis pour yéeg ndax waatu waatul buyuta min abwaabiha yàlla ne kuy dem ci dëkk na nga jaar ca bunt ya oustaz Abdou Aziz Thiam kuy dem ci bunt nanga jaar ca dëkk kuy dem ci dëkk jaaral ca bunt ba kuy dem ci kër jaaral ca bunt ba ndax Cheikhul Hadj Abdou Aziz daan na wax ne loo miin miin kër boo jaarul ci buntu ba tëb mën nañu la jaawaleeg sàcc duma la te comme baytil maqdis fa la buntu asamaan ubbi ko moo tax yàlla santoon yoon ci yàlla suleymaan pour mu tabax fa jumaa jooju ndax fa la buntu asamaan ubbi ko fa la jaar nag moo tax moo doon awwalul xibla bu jullit ñi daan jublu waaye foofu indirect la dina ñëw ci waxtaan bi foofu indirect la ndax buñ ko fa jëlee dañuy jaar ak moom baytilaayil xaram door ko yóbbu baytil maamuur yonent bi comme xeetam dafa ne xeet wu gàtt fan lañ te mën a tooñ te seen jëf dafa néew bu bu ñu amee indirect rek mën na réer mën na yàqu ci diggante bi mu def ci xolam te bëggula ñaan boromam ndax ku la dul ku lay may te doo ko ñaan da ngay kersawu ku lay may fu mu dëkk te doo ko ñaan war nga am kersaay ñaan ko mil francs koo xam ne saa yu yëgee sa soxla faj ko war nga am kersaay di ko ñaan ndax yonent bi yàlla daf ko defal lu ne te ñaanu ko dara te bokkul ak moom dara rus na ko ko wax waaye mu ngi ci xolam te yàlla lu ci xol yonent bi ñor na ko mu ne ko xat xat ca dëgg dëgg dëgg naraa gis naa la ndax yër naa sa xol bi ba gis ko te xallu bu yaa ngi walbati rek wajee ko sa xar kanam gile fi sama i jëmee ko ci asamaan li nga bëgg xam naa ko fa ci saa si fi nga koy xalaate walli dëddul nga jublu chatral masjidil haram ni nga ko bëggee laa la koy defal ndax la tax foofu direct la ñun ñii tey ku fi toog ñu joxoon la numéro secrétaire bu présidence de la république direct ci Macky Sall ak ñu jox la numéro Macky Sall direct président de la république bu la gën a nga xam ne bu ne kar rek mu ne allo ak nga jaar ci secrétaire bi mu naan la dafa génn nag mu ngi fii ak dugg na fële dafa xaaral dafa jàpp lu la ci gën jeex na yàlla xam ne yonent bi lii la bëgg mu defal ko ko mu ne ko nag jublul bés ni tey masjidil haram ndax fala la baytil maamur tege bu doon wàcc tey moo kaaba gi ñoo yem autour du ëpp du yées biñ ko laajee yonent bi nee na baytil maamur ba yàlla bindagul maam aadama te ci lay duggee ci waxtaan wi ba bufta di wal bër bu set soixante-dix mille malaayika daañ fa dugg tawaaf julli ñaari ràkk génn te ba bés peñ dootuñ fa dugg kon yàlla rek a bari le waaleykum salaam wa kon yàlla rek a bari la la tax yàlla rek a bari la xoolal loolu yàlla bind ci ay malaayika kenn xamut nu mu toll mu am beneen bu gën a garaaw boobu sa Sidi Ahmed mooy xamoo ba yàlla bindee taw ba tey toq ndox buy wàcc malaakaa koy wàccee benn guddoo boo gis bu jógee asamaan benn malaakaa ko indi benn guddoo boo gis ci àddina mu toq malaakaa ko indi wa illaa du ñëw yàlla lim am dafa bari moo tax ma ne ñépp ak may yërëm foofu laa ci duggee rekk damay joxe exemple la tax waaw yonent bi dem taayif ñu ñu ñu jam ko ci tànk ba mu am li mu am man àjjuma laa doon jàngale julli ak tooginu kuy xadara ak kuy wasifa ak kuy laazim ni nga war a toogee bi may jóg nag xam nga sama eh, kii rek njax la bi may jóg na ba toogaat ci fauteuil bi laa yëg ne def naa faux pas waaye bëgguma kenn xam sama soxnaa ngi ne la toog dama yegg ci kër gi bi ma duggee ci toilette bi jàpp ba génn dama daanu xëm xaw ma fu ma ne àjjuma te ma kii a àndoon ndax dama ko forcé parce que am na yoo xam ne jarul nekk fii di négocier affaire am la man dama war a julli moom dañ ko yónni ci man kooku moo xam lu muy dox loolu du sama affaire lu mën a indi man li ma war dinaa ko def dama war a jàpp dama war a julli damay jàpp damay julli bi ma daanoo xam nag laa dem jàppi waat loolu sama yoon newu ci yu ñàkk fayda yi tax ma di ko ma di ko ma di ko gantal loolu du am du feebar bu am solo yu ñàkk fayda yi la la moo bong bong ak muuraake ñoo yem da mën nga muut mënoo nga bàyyi yàlla xam na ko waaye du tee nag boo ma gisee ma toog nii nga ne kii moom fa lillahi alhamdu waaye fi ne balaa ma dugg ci oto ba de caaf xam waaw te loolu yépp sant yàlla la te luy jeex la te jeex na ba noppi insha allah du dara bu ko kenn yóbbu naan si am na am na ñu yàkkamti ma dee am na rek ndax man dumay feebar nag dëgg-dëgg du feebar te feebaruma yit nag est-ce que ku feebar dana def nii boo waxee nag ñu ne xanaa du nit nit laa waaye lii tax nit feebar duma ko def man duma kuy feebar ngeen xam loolu tey lii du feebar ku feebar dana toog di def nii non man duma kuy feebar damay xëy rek dee waaye duma feebar insha allahu taala ak nit yonent bi ba lu mu wax ba ko buur buuru Éthiopie yónnee cadeau ya ñoom def ba boole ci benn médecin daf ko delloo médecin bi buuru Éthiopie ne kii yaram wi neexoon na liñ doon wax ne kii mooy asrafil xalq yëpp doy na waar parce que li ëpp importance la delloo muy médecin bi dal di ne dem leen ci moom ngeen laaj ko lu tax mu delloo médecin bi mu ne ko su ngeen demee ngeen ne ko ñun xeet lañ woo xam ne du ñu feebar mu ne ko xanaa doo nit mu ne ko nit laa waaye lii waral nit feebar du ma ko def ku feebar rek sa loxo bi la fal yanzuril insaanu ila taami inna sababna al maa sabban summa saqaqna al arda saqan fa anbatna fiha habban wa inaban rek foofu am na benn sew-sew bu tuuti bu fa fal yanzur al insaanu ila taami oustaz Malick liggéey ci Thiès moo daan wax ne ñi xam nañ ko moo daan wax ne su yàlla amoon beneen tur bu dul allahu taam lay tudd ku mas suñ ziyaar yañ ko daan ziyaare la ñu ko waxee mu ne yàlla boo amoon beneen tur bu dul allahu yàlla taam lay tudd taam mooy ñam mooy plat ñu ne ko lu tax mu ne da ngay xool li yàlla wax fal yanzur al insaanu ila taami lu mu ca teg inna sababna al maa lu tax mu ne tudd boppam xamoo lekk gi ñii di ñii duma tudd kenn nag ñii di la sonal naan tariqa bidaa dafa xaraam nangam nangam nangam soo ko gëmee bu lekkati lekk dafa xaraam maa ko wax su tariqa xaraamee rek lekk xaraam mbubb mi ñuy sol dafa xaram bon oto yi ñu dugg dafa xaram bon avion yi ñuy ajee ji bon dafa xaram lanet yi nga sol dafa xaram bu fekkee ne sëriñ dafa xaram laa wax bu boobaa faju dafay xaram xam nga lu tax ñam wi ngay lekk fekk gëmoo ne yàllaa koy reesal yàllaa la ko jox moo ci sonn ba nga am ko doo suur ma joxe ci benn exemple Cheikhul Hadj Abdoul Aziz ba muy ubbi jàkk saaw gële ca Saalum xam ngeen ko jàkk saaw Saalum xam ngeen ñu indi mburu mi doglu leen rek indi mburu mi am ku sàcc mburu mi alaaji Abdu ne baa ko mburu dootu ko suur ba yow man xëyam billaahi keroog la bu lekkoon sa camion mburu du suur fii ci Saalum te ba mu koy wax teyu ko ñun ñëpp xam nañ ne Alaaji Abdul Aziz soxor waaye nit yàlla day toll parce que mburu mu ñu indi pour ñëpp nga sàcc ko te tool yaa ngi nit ñi béy nañ ba ñaq mu ne bàyyi leen ko mu yóbbu ko mburu mburu dootu ko suur ba yow mal xiyam keroog camion buñ ko doon tegal camion mburu du suur yàlla moo rocc sirru suur ci moom mburu sirru suuru mburu ci moom moo tax ñam wi ngay lekk pepp ñam bu ci nekk dañ ci bind turu yàlla wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum mbokk yi yàlla du caaxaan moo tax Oustaz Malick Guèye ne bu fekkoon ne yàlla day am beneen tur bu dul allahu mu ne kon taam lay tudd ndax dafa ne fal yanzuril insaanu ila taamihi ne inna peppi dugub bam ca ba nga ca noppee mënatoo ca dara mu wow koŋ nga dënk ko suuf ca nga ca pare ku ko dundalaat ci biir suuf waaw kay jërëjëf te bu keneen ñëw nag dégg ngeen déedéet déedéet day yàq waxtaan ku am loo may jox rek joxal ma ko waa taabal ji incha allah dégg ngeen pepp bi ngi nekk ci biir suuf tudd ceeb walla dugub wala wala gerte kan moo am kàttanal génne ko ci suuf si mu nekk suuf ak ni mu dëgëree suuf ak ni mu amee poids donj doomu dugub bu tuuti mbëkk ko mu génn am na ko ko jox autorisation mu mën a mbëkk ba mbëkkee ba gën kan moo ko sàmm ba mu nekk pol sab a sunbulatin fi kulli fi kulli sunbulatin miatu habba wallahu yudaifu liman yasha benn pepp la woon yàlla génnee ci focc ci benn gub mu tontóor palpal pal génnee ay pepp yu bari ba nga bojj dugal ca dugalaat ci sa te benn pepp nga yóbbu woon fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin ku dul yàlla mënuloo ko yàlla ne man mën nag nga xam ne maa préparé loolu bañ góob ko ba indi ko ci sàq yi ba ngeen jox ko jigéen ñi ñu bojj ko soq ko won ko mooñ ko cere ko ñeex ko sotti ci bool bi yekk teg nga dugal sa loxo ne bismillah dànk sex sàqa mi mu mokk bu yàlla indiwul wanaasu du dem su yàlla indiwul wanaasu du dem voilà soo wanaasoo mu jàll bu yàlla indiwul lu ñuy wax rees hôpital ngay teere ji mu filtre rees lii nekk sébbirit lii nekk tuur ndox lii nekk deret continuer di circuler ci sa yaram mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu assatise yi fi nekk yëpp jiital ci oustaz Abdoul Aziz suñu sëriñ teg ci alxaaji sëriñ Souleymane Samb bii nga xam ne ñooy ànd fu ma jëm yéen ñépp ngeen xam ko mook imaam Mouhamad Lamine Sakho ñuy njoboot ci sëriñ di Mouhamadul Mansour borom daara yi di nuyu oustaz Mouhamad Wat oustaz Hadj Malick Diop oustaz Sidi Ahmed oustaz Adama Sarr oustaz euh, Mouhamed Seck ustaaza Habib Njaay te boobu rasulullah yi ngi toog yàlla dafa xëy ne yonent bi am na gaa ñuy ñëw daañu la laaj roox fan la nekk ci nit waaye suñ la ko laajee wax leen ni roox sama mbiru borom la am na ñu ko xam waaye ñu néew la Abdullah ibnu Abbas yëkkati loxoom ne xam naa fan la nekk man yonent bi ne ko saddaqta yaa Abdullah ibnu Abbas loola newoon ci Abdullah ibnu Abbas ba tey mu ngi dox ci biir nit ñi am nañu ko xam ne pat tubaab bii xam nga ne li ko dese moo xam wax bariwul ku gis yi ñuy def ci technologie ci doomu aadama ci xotti yaram ci changer noom bëgg tey ñu def la ko dee leen seetaan télévision yi rek am na ci émission yoo xam ne man dama naan ñii est-ce que nit lañ boo bëggee léegi ñu modifier la sa kanam nga wax ban kanam nga bëgg maanaam bu la neexee nga ne ne indil leen ma kanamu Michael Jackson moom laa bëgg boo amee xaalis fay ñu defal la nga yor kanamu Michael Jackson bakkan mbaag yépp ñu changé ko ah am na ak yeneen yu gën a garaaw yoo xam ne boo ko waxoon tey nit ñi duñ ko gëm kon ngeen may ñu rek du yàgg bale bañ ko waxee ñépp ko wax xam nga lu tax ma ne Seydul Xaaji Malik moom moo ko firndeel moom rek a tontu moo ne alhamdulillahi zil ijaadi wal qidami mu middina bi wujudil badri man huwa al badru lu tax mu ne alhamdulillahi mooy faatiha faatiha mooy xaqiqatul muhammadiya xaqiqatul muhammadiya ci la ni ñi mën a wax ñaar la xaqiqatul muhammadiya ak xaqiqatul ahmadiya xaqiqatul kenn xamu ci dara ku dul yàlla rasulullahi yàlla xamalu ko ca dara xaqiqatul muhammadiya déglu leen li may wax bu baax xaqiqa ba ca boppam xaqiqa bi ci boppam xam nga luy xaqiqa mooy dëgg-dëgg boo ko doon firi mooy dëgg-dëgg yonent bi ba ko yàlla bindee moom xaqiqa bi dëgg-dëgg yonent bi daf ko teg di ko xool moom yàlla bi xaqiqa bi kersa ñaq ñaq boobu def duusu géej duusu géej boobu mooy bëmb di bëmb di bëmb ba fi kaaba gi nekk tey yàlla def ko puurit wa hiya kal duxaani bind ci asamaan mu des lu ñuy wax ndàmb ndàmb mooy boo ko doon wax tey mooy tigadege lu mel ni tigadege mu des la desoon comme ci ga dege fa mu desoon mooy kaaba gi tey fa la yàlla commencé nag di ko tas def ci suufu juróom-ñaar gannaaw bi mu defee asamaanu juróom-ñaar ci xaqiqatul muhammadiya xaqiqa boobu nag moo tax nit ñi léeg-léeg nga digg ku ñeme yàlla gis nga xattal anbiyaa yi ba ci yonant yi dalee ca maam aadama ba ci sayyiduna muhammad ku dul yonent bi nag laa wax ku dul yonent bi ci yonent yépp nag unanimité unanimité cent vingt quatre mille prophètes yi cent vingt trois mille yépp xam nga nuñ soree xaqiqa bi Oustaz Adama xam nga nuñ ko soree fa xaqiqa ba nekk ak fi yonent yi nekk juróom-ñaar fukki junniy kiiraay moo dox seen diggante soixante di mille kiiraay moo dox digganteem ak anbiyaa yi soixante-dix mille kiiraay yooyu dafa am ay leer leer yoo xam ne mooy jam ca xaqiqa ba reflété jamaat ci beneen xaqiqa reflété booba jamaat ci moom reflété ba muy juróom-ñaari jam-jam ci la yónnant yi di xool di gis ñoom yónnant yooyu nag ñoo koy wàccee ci awliyaaw yi moo tax boo amul sëriñ doo dem di nga am tiyaabo moom laa ubbee woon di nga am tiyaabo waaye doo dem ci yàlla boo bëggee dégg xaqiqatul muhammadiya xam nga noo koy déggee ma indil la ko terre mooy cap de biche ak suñ courant yii ci kër gi soo jëloon sa fil branché ko directement cap de biche li ci sa kër yépp dana yàqu sa kër tàkk cap de biche bi huwa al muhammadiya lii ñuy jot nag lii ñuy jot mu nga jógee mooy xam mooy xaqiqatul muhammadiya kas euh, euh, cap de bi nag mooy suñu borom subhanahu wa lii ñuy jot ñun mooy rasulullahi moo tax jëmmi yonent bi moo incarné lépp yàlla moo tax Oustaz Malick Guèye ba mu ñu koy wax dafa ne su fekkoon ne ñeme nga ba ñeme da nga naan bi mooy yàlla moo tax yàlla ne in tutiuhu wa in tutiuhu tahtadu wa atiu llah wa atiu rasul ku la topp topp na ma ku la moy moy na ma kooku moy kan boo ñemee waxal du yàlla waaye jege na ko jege na ko moo tax su ma dan laa fata dal su ma dana la fa kaana qaaba ni aw adna maa ngi ko dégg ana la ana Malick Sey xaaj Malick Sey am na lum mu ci junju démb ca gàmmu ga waaye comme lii fii lañ ko doon waxee moo tax laaluma ca sax dafa wax tuuti ci xaqiqatul muhammadiya démb xaqiqa ba fam nekk ku dul rasulullahi mosu ci teg bësam yonent bi dong moo ci teg bëtam moo tax seydul xaaji malik nag moo ñu ko wéralal ñun alhamdulillahi zil ijaadi wal qidami mu ñëwaat ci biir indil la ne wa innahu is araada allahu nashatana abaana min nuurihi nuura nabil alami moo tax ma ne leen Maodo yow mal xiyam lañ koy xam xoolal lii neex na wax waaye fa ko Maodo jëlee ba nit mën ko wax yombul ma indil la beneen boo xam ne Maodo ko waxat di di di la junjal xaqiqatul muhammadiya nuurun axaata bihi demal nuur axaata bihi yàlla yépp mu indil la yàllaahu demal ma ca Busiri ba muy tagg yonent bi ca euh, ca leer ya ba ne ko min ulumil xel tudd na ko léegi elmal lawxi wal wal xalami waaw kañ boobu laa soxla woon ustaaz Abdul Aziz ustaaz alaaji bàcc anamu wa min ilmal lawxi wal xalami may ma neel tekk foofu wa min ulumika ka ilmal lawxi wal xalami wa min ulumika la ko wax yonent bi lenn ci xam-xamam moo ëpp law ak xalam lenn lenn rek ci xam-xamu yonent bi moo ëpp law moo ëpp xalam ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا

pour أبيض وقد أتى

وهذه بردة المختار حق ختمت فرج بها كربنا يا واسع الكرم

والحمد لله في بدر وفي خلق مولاي سلمي وسلم نبي النبي بآلامي من خير خلق وسليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا وعنا ngeen may ma tuuti